فجأني بما به فجانا باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجانا باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجانا باق مميت والبقاء جانا قولي قول يحجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القحار من لبانا كوني له حمدي بما استبانا الحمد لله الذي أحتانا الحلم والحمل والأوطان له سكوري وكفى الشيطان كفاية الباقين ما أعطانا حمدت حمد الحامدين لنا بالقلب قال man def nañ liñ mënu réew ma dara ump la fa ndax ngelaw li bu baree sax xam nga ne dama lay woo wax la ko sëñ bi ngelaw li su baree dong xam leen ne woo naa sëñ Maamun ne ko kat Afrique du Sud nangam Afrique du Sud nangam muy ñaan rek na ko sëñ Saaliw doon defee di dem ca sëñ Muntaxa nam doon demee ca sëriñ Saaliw di ko wax sunuñ mbir noonu la koy waxe sëñ Muntaxa mii ku ne gis na naqariwaayu réew ma fi ne ak tolluwaay ba ngir mbas mii réew ma metti na lool waaye teewul ñii ñu ànd ak seen ngor loo leen laaj ñu jox la ko ay jëmba ngi fii toog yoo xam ne keroog bañ yëkkatee sas wi ngir mottali bunt yii mën a fay waa Turquie yi fii lañu ñu toog ci Sénégal joxe ko te def nañ fi ay weer jaayante ak sëñ Tuubaa la def sëñ bi ñaanal leen ñii nañ fi yàgg ñii nañu wér nañ am ay xéewal nattablewu ma ne jawriñ sëñ Mamour Seyid nattablewul ne ñii bu ñu amee xéewal danañ ko def ci sëñ kon ñaanal leen ko yow lañu sëriñ Saaliw booleeloon yow dong la àndal kenn mënuñoo jële ci yow kenn mënuñoo tàggaleek yow lañ la waxoon rek duñ la war mukk duñ la war mukk ci àddina danañ ànd ak yow ba ca kanam sëñ Saaliw ndax lu ñu am ci Afrique Sud sëriñ Saaliw waaye nag ku nekk foofa ca réew ma day jàpp ne da nga ñu xoqutal mbaa da nga fa jële jëwriñ sañ Maam Mor Sey maa ña ànd ak moom man mi gën a bon dong njëkk leen ci man ndax da ngeen ma fa jële wala déet man ku ma mënta jëlee ku ma mënta jëlee ku ma mënta jëlee ci ma faatuwul bisri mënoo faa jëlee Mamour Seye mënoo ko ku ma mënta effacé man mënoo effacé ma faatuwul bisri te bët bu set ngeen gis ma man laxasaay na ci liggéeyam sëñ Tuubaa bi kon yem leen ci man jëwrin ëpp na ma faatuwul bisri ëpp na sëñ Maamun ëpp na bàyyi leen ñooñu tayam ci man wuti leen taw feeqi sëriñ Tuubaa ñëw ci liggéey bii jumaa jaa ngi nii te day yegg bunt yaa ngi nii taaru rafet nga tëdd sa dërëm demu ca sa xol di dagg tax nga ne liggéey sañ Tuubaa bi projet la day taxaw la ngay wax xamoo ko kon xamoo sëriñ Tuubaa xamoo sëriñ Saaliwu day dem te day yegg te ñoo koy yeggale jébbal ko sañ mun Muntaxa mu jox ñu yeneen ne ko sëriñ Saaliwu waxee woon noppalu leen lii alali sañ Tuubaa la du alali kenn da yi dañoo màggat ñaar fukki at ñi danañ dem ba bijaaw na ci duñ bàyyi gone gu bëgg soobu soobul bunt yi ubbeeku na kenn tëjulul kenn dara man ba ma ne cëpp Afrique di Sud kenn woowu ma fu ma dem sëñ Tuubaa laay liggéeyal parce que fu liggéey sëñ Tuubaa boobu fu ma aw moom laay aw gone ya fa ne bëgg a liggéey sëñ Tuubaa lu tey ñu soobu soobu leen te ba wax ji ñu ngi jégalu ci kàddu yi bu baax a baax waaye boo déggee ma leen di wax lii daam lu fi jaaroon te loolu day nuyoowaat fi ñu ne barki démb rek la waat kon laaj na ngeen xam ko bu baax ba fedd seen seeni laxasaay ba su ngeen delloo Afrique du Sud dara du leen xuqutal sakk leen seeni nopp bu leen dégg dara li ngeen joxe woon lépp barkeb sëñ Saliou Mbacké mi ngi ci jumaa ji li ngeen joxe woon lépp dugg na ci liggéey sëñ Tuubaa bi ñi ngi jégalu ci kàddu yi ñaan sëñ bi na yàlla na nga fi yàgg te wér kàddu yi nag yëkkati geeg ak kii gi ci sa kanam ñu ngi koy tuub te di ko jégalu waaw waaye ñii dañoo seq liggéey bi te faw faawuñu seere ñu wax rek ci sa kanam yàlla na nga fi yàgg te wér sëñ Thierno yàggalal kàddu yi nga doon. ndax koo xam ne ba mu nekkee ba nëgën ci liggéeyal sëriñ Touba la nekk ku toll ni sunu jàmbaar ja Seex Saaliwu Mbàkke nga ñëw mu boole la ak moom war ngaa tiit war ngaa feddli sag laxasaay ndax duñ la masa mën a dab waaye saa bu nekk yaa ngi ñu bàyyi xel diñu won di diñu gestu diñu wax nii leen waral defale sëñ bi ñu koy xool ci yow yàlla na fi yàgg te wér ni ko sëñ Seex waxee duñ la war mukk barke si Tuubaa duñ la war mukk duñ la war mukk mukk ba ca kanam sëñ Saaliwu te ñun dañoo amul lu may sëñ Saaliwu Mbàkke barke sëñ Tuubaa kon sëñ bi ñu ngi ci sa gannaaw ni ko sëñ Seex waxee sëñ bi dool dolli yaa ngi ñaan xam nañ ne yaa ngi ñaan waaye dolli ñoo ñaanal ndax seytaane dafa bari pexe seytaane dafa bari doole dool dolli ñoo ñaanal rek ndax boo ñu ñaanalee rek danañ mucc ci lépp gëm naa loolu ndax tey jii yi tey jii de barki sëñ Tuubaa yow fi yaa fi sunum sëñ Saaliw yaa fi suñu sunum sëriñ Muntaxa yal na fi yàgg te yaa fi sunu lépp te loo ñu wax danañu dal ndax boole baa tax sëñ bi da laa def ne na jàkk boole ñoo ngi yow boole goome googee mu ñu booleek yow barke sëñ Tuubaa duñ dem fenn ci kudut yow duñ la weesu mukk leen bëgg lépp a ngi ci yow te loo wax tey rek danañ ko def danañ ko man danañ ko def ndax boole bi moo tax ñu ngi lay siyaar bu baax te dina la jéggul ñin ñi nga xam ne ñoo séq liggéey bi foofee ca réew ma maa ngi leen di xamal ne jumaa ji boo xoolee bunt yi ci gannaaw da nga naan jumaa ji egg na ndax rafetaay bi ak taaru bi ak lépp ci ni mu war a mel kon ma ne gaa yi boo xoolee ci biti danga naan jumaa ji àgg na waaye nan xam ne ci ni ma ko bëgg a waxee ay jàmbaar lan ay gor lan ay jullit lan lin am lépp am nan pas-pasu jox ko sëriñ bi waaye dama ne nan yokk pas-pas bi ndax boo duggee ci biir jumaa ji defagun dara defagun dara bunt yi boo xoolee ci gannaaw da nga ne jumaa ji àgg na waaye biir gi dara newagu ci te biir gi lu ne fi war a ne kon ma ne gars yi nan fedd li pas-pas bi fedd li couleur yi fedd li jom ji fedd lépp ci barke sëñ Saaliw mooy tax liñ bëgg lépp ñu man koo def ku jàpp ne dafa góo dara moom boo jaajuwaatee boo ñëwee da nga am li nga am lépp nga andi ko bu boobaa fa la yëf yi nekk fa la yëf yi nekk waaye boo nee jumaa ji macha allah monté nañ bunt yee def nañ nii giri ya pare na nangam nang boo duggee ci biir tey kuy tiit sëw fit dana dem ndax biir gi dara newagu fi dara newagu fi te ñun ñoo ko war a def ndax bu fekkonte ne bii du la sëñ Saliou waxoon naka ni nangu nañ ko ci suñuy loxo bu yàgg bu doon def nañu jumaa ji seen jumaa yor yéen a koy liggéey loolee moo ñu protesté ba kenn mënu cee dugalub loxo am waaye bu dutoon loolu naka borom milliards yi ñëw nañ fi ba nangu ko yeggale jumaa ji bu yàgg waaye lii mbirum baatin la barki sëñ Tuubaa bu dutoon li sëñ Saliou wax naka ni jumaa ji pare na ci ñanee na koy yeggale ma ne kon gars yi nan am pas-pasu dox te amul fit te xam ne jumaa ji defagul dara te ñun ko war a yeggale maa ngi jéggulu ñëpp sëñ Maamoun maa ngi jéggulu ci kàddu yi ndax yëkkati kàddu ci sa kanam kilifa am na luñ ci wax waaye maa ngi ci jéggulu bu baax tey ñaan nga yàgg fi lool ban yeggalee jumaa ji ne ko sëñ bi waxoon teg caabi ci say loxo nga jébbal ko sëriñ bi mu jox ñu ñaneen ñu yeggal ko mu jox ñu yeggal ko te ñépp ñu fekk ko kenn bañ koo wute ci barkeb sëñ Saaliw lii nga xam ne mooy lii nga xam ne ndax li ñuy wax mbirum sëñ moom bari ko ci mbartal la boo tegee sa loxo mu dem boo tegul ba ko tey teg sa loxo mu dem kon gars yi liggéey bi mën nañ ko de te yàlla dénk ay teraanga ñun buñ bëgg ay kër buñ bëgg dara suñ soxla yëpp na nekk jumaa ji ndax na ngeen xam ne képp ku ku mariga si Seex Jóob léegi mu ne da am ñoo xam ne samedi day jot ñu toog seen kër duñ dem dayra man loolu de du jëfi murit loolu day du jëf ju rafet képp kuy taalibe bu samedi jotee nga war a jóg dem dem ci dayra ba waaw ndax li njëkk di erreur sët sëñ Tuubaa yéen fay fekk di fa ñëw dañu war a fekk ca dayra ba waaye yow sët sëñ Tuubaa ñëw dayra samedi jot demoo ca loolu day mel ak ñàkk sens la ak deltu gannaaw ndax yow mën ngaa dem dayra sët sëñ Tuubaa ba ñaan la say say say say jafe-jafe jeex an wara mawlana mahal fira wa daxdaxal fatana وذكره الحكيم قد آتانا دعوته وقبل لي ألانا قلب الذي حسدني فلانا لأقطع بي ورمشانا وذان لي عند الغدا ما شانا لك أوجهنا فقد بدأ أعطيتني الذي محل أدرانا بشرت بالأوطان والأقران لي وأبتى البشر والجيران كفيتني قمن حوى قسرانا لي تصفي الأمر والجنانا تأبني بلا حنى الجنانا زللت من في البحر قد حادانا والبر يا من بالنبي أدانا يشكرك اللهم يا من دانا كل به وبالنبي مزدانا نفيت أني قبل قتلا قانا وسيلاقي الوقت ودقانا جذت البحور رضني ممانا بالمنتقى أتبت للزمان جزاء ربي راض لسلطانا مع الأمين والمنى أحتانا أشكره ولم يزل ديانا شكر الذين شاهدوا حيانا ناديته وبالمنى فجانا وبالنبي أن نستني مذجانا الحمد لله الذي حدانا لذا وبالأمين قد فدانا محمد وحبل القرآن شكري إلهي علي أنا نفى شكوكي قاد لي تبيانا وزادني اليقين والبيانا أمنني وحبل الإسكانا وطيب الفؤاد والمكانا لحو قطابي ومحل عصيانا كما كفاني من حوى طغيانا قد لبت لي يا مالك أحيانا يا من محى القطأ والنسيان وجهت لي ما قادني برهانا يا من ينور بي رسول الله قد آوانا منذ الأمير أظهر العدوان أنت bi Cheikh Mouhamadul Basir ñu ngi lay siyaare ci turu Serigne Mouhamadou Mamoun Boussa mii doon sunu jawrin Serigne Saalihu Mbàkke boole woon ñu diirab ñaar fukki at ak juróom-ñaar ci ren tudde woon ñu ma faatihul bisri ne ñu doo leen dajee jàng alxuraan ak i xasida sax ci njub ndimbalal sunu borom dana leen fu fekk ñu yëkkati kàddu yi ci turu jawrin ja sëriñ Mamor Sey jaay jawrini daayira ma faatihul bisri ak bokki taalibe yi nga xam ne ñi ngi fi teew te nekk Afrique du Sud ñi ngi lay siyaare bu baax di ñaan yàlla mu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te wér bala mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba lépp ñu ànd ak moom liggéey ko namuñu ko waxe woon te ngeen fekke lépp Mbacké Ah, ñi ngi lay sant bu baax ci dikk gi ci dellusi gi ndax sa dikk gi nga fi dikkoon ak yokkute la ci ñun ndax kuy liggéeyal sëriñ Touba nekk bitim réew ba ki yor kàddu sëriñ bi ñëw di ko saytu si loolu ak sant yàlla la ba nga fi ñëwee daaw fekkoo fi woon bunt yi fekkoo fi woon palanteer yi kon sant nañ yàlla bu baax a baax bunt yaa ngi nii palanteer yaa ngi nii waa turk ñoo ko liggéey ñi ngi fii danañ leen woo léegi ñu mën a nuyoo insha allahu bunt yi nag bunti kiivre la Euh, ak fer bi nga xam ne moo ko wër palanteer yi tamit ak li bokk ci palanteer lépp turc lañ ko liggéeyee loolee nag dañoo gëstu fii ci Sénégal ba noppi gëstu ca Siin gëstu ci yeneen réew dem ba turc demal fa sunu bopp xam ne kat liggéey bi liggéey bu wér la moo tax ñu jox leen ko ndax Serigne Touba kat lépp luñ koy defal la gën la war a doon loolooy waral ñu dem ba turc liggéeyee ko fa indi nañu leen ba ca yawet gis nga leen yóbbu na leen ci sëriñ bi it sëriñ bi ñaanal leen kon Mbàkke ñi ngi lay sant bu baax a baax a baax waa Afrique du Sud ñi ngi sant bu baax ci turu sëriñ Maamun mii liggéey bi nag ma Mafatihul Bisri la tudd sëriñ Saaliw ko ko tudde nga ñaanal ñu Mbàkke neel sëñ bi ñu ngi ci ginnaawam ba faw lañ sëñ Saaliw digaloon rek ca loola la ne sëñ Xaadim Silla mii doy na ci seere ñëw na fa xam na la fa xew ci liggéeyam sëriñ Saaliw boobu rek la ñuy sax fas yéene doon Mafatihul Bisri ba faw dara duñ ci jëlee topp ci ginnaaw sëñ mun Muntaxa loo ne nag Mbàkke mën nañ ko ñu ngi leen di déglu rek lu ngeen ñu dugal danañ ko def te fas yéene nañ du ngeen ñu gis ci la ñuy ci lu ñuy ci li ñuy tere donc nga yéen a ca réew ma nag ñi ngi yóbbante Mbàkke ci sëriñ bi di wax ne ni jamono mel gis nañ ko ñi ngi sàkku ñaan bu baax ca réew ma bakkan ya fay rot bari na lool ña fay wopp bari na lool jafe-jafe ya bari na lool waaye tiituñu ragaluñu saa su nekk ñi ngi gën a laxasaayu nekk ci ginnaaw sëriñ Tuubaa donc yii ngay gis ñu ñun Afrique du Sud ak ña fa ne ñu gore la ñu Mbàkke ñu bëgg a liggéeyal sëñ Tuubaa lañ li jamonoy xat-xat ak li muy métti métti loo leen sas danañ ko def loo leen wax danañ ko def jaayante kook sëriñ xoolu ñu jamono ju ñu xooluñu jaboot ñu kenn kon Mbàkke nga ñaanal leen ci barkeb sëriñ Muntaxa Mbàkke ba ñoom ñu yokkute mucc ci réew ma ci barkeb sëriñ Saaliwu Mbàkke mi ñu joxoon liggéey bi ñu ngi sant bu baax a baax lew na du ñu ànd ak kenn ku moom it lu ne jaar jumaa ji am na loolu duñ ko wax mukk gàllankoor gu nekk ñëw na ci suñu kaw miti mu ne ñëw na ci sunu kaw waaye moom mu di ñu dalal rek nañu boole ga ñu sëriñ Saliou boole loon jar na ko lu mu ko jaral nag Mbàkke ñun danañu ko jaral topp ci ginnaawam ba liggéey bi yegg ndax sëriñ bi dane woon jumaa ji seen jumaa liggéey yi seen liggéey yéen a koy liggéey su noppee ñu jox leen yeneen kon Mbàkke ñaanal ñu ba liggéey yëpp yegg te ngeen fekke lépp sant nañ bu baax a baax Mbàkke sëriñ Baara waxoon ne sëriñ Touba moo ma joxoon Cheikh Mamadou Bassir doy na sëkk ci li Cheikh Sidi al Muxtaar waxoon na ko yaay samay gët yaay samay tànk yaay samay loxo yaay sama làmmiñ kon fu mbooloom Serigne Touba nekk moo fa war a dem xoolal ko Serigne Touba moo fa war a dem waxal fa Sëñ bu dee jëfit moo fa dem war a dem jëfal fa Sëñ Touba moo tax bi muy ñëw fii rendez bu ñu joxe fii xat na lool ci xat-xat yi mu toll ci kër Sëñ Touba ak lam fa bàyyi. waaye ginnaaw lépp sëñ Muntaxa la waroon te mooy ndawul sëñ Muntaxa mu foog ab noflaayam lépp jënde ko ngërëmul sëñ Tuubaa moo tax mu te ay jéegoom ñëw fii ànd ak sëriñ Cheikh Baara mii di sëriñ ab doomi sëñ Abdou Lahad moom sëriñ Baara moom seriñ Tuubaa te ku ne xam ne ne fu mu masaa jëm sëriñ Tuubaa boole leen da ngeen bu ngeen ko geestoo da ngeen ko fa gis waaye mu wooyit ki nga xam ne moom la sëriñ sii di tànn ci ndigalul sëñ Muntaxa jox ko dëkk bi mu di monsieur le maire Abdoul Ahad Ka moom it lu ñuy def ci dëkk bi moom lañ koy defal moo tax mu ne ko nañu ànd tànn nit docteur Khadim Syll te moom liggéey bi doon na ci dara liggéeyu sëriñ bi ci dëkk bi doon na ci dara ñu ànd ak ñi ñu war a àndal ñëpp nag moo leen bay bàyyiwutoon kenn xat-xat yi moo tax ñu ci bari mu yewwi leen waaye bu doon ñëw fii dana ëpp ñaar fukki oto te ñëpp doomi kilifa lay doon ngir xam seen liggéey bi fi mu tollu sëñ Muntaxa ak fi ko toll moom moo tax mu àndoon ak ñoom sëriñ sa Maram it mu ngi ci biir ak sëriñ Jiili Ñang moom sëriñ Xaadim Ñang ak njaboot gi yépp rek kon damay bàyyee kàddu gi sëñ Moudou Mamoun su daaneelee ñu déglu sëriñ bi Cheikh Mamadou Basir kat lem waxaat wax na ko nee na jëwriñ di su ko tànn di tànnaat jeneen ginnaaw moom la defoon muy seen jëwriñ bu ñëwee mooy wax ci aw turam muy sëñ Moudou Mamoun nee na waxoon na la ko it nag asalaamaaleykum wa rahmatulah. nga xam ne moo yore quartier yi yëpp Cheikh Saliou Mbacké tegoon ko ci loxoom mu mat fanweeri quartier lu topp ñoo ngi leen nuyu yéen ñëpp ci turu Cheikh Mouhamadul Bachir mu jëlee nuyoo bi ci Cheikh Mouhamadul Mountakha ñu di leen siyaara di leen sant di leen yëgal ne liggéey bii nga xam ne ñu ngi jóge woon ci loxol. ci ndigalul ci baatu Cheikh Saliou Mbacké nga xam ne ba ngeen ñu yëree kër gi ba nopp te fi def àll woo xam ne bii daa kenn dëkk bu fi mu ne nañ ma déglu ba barab bi sopp ko ci ay dëkk yi ma jox leen ndigal ngeen tàmbali liggéey bi ndax fa muy àgg dana fekk mbooloo mu fi dëkk wër ko ba man fee ba jumaa ji mën a taxaw te ba waxtu woom ko soobee la joxe woon ndigal li ñu tàmbali liggéey bi liggéey bi ñu ngi ciy sant yàlla bu baax noom leen ko waxe woon ñu ngi ko nii gise seen liggéey bu kawe bii sëñ Tuubaa koy saytul boppam kon nag xam nañ ne sëñ bi ko saytu ndax ci ginnaawam Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ñëw na fi dikkal fi boppam wax na seen liggéey bi dana àgg toleet Cheikh Seydi Moxtaar joxe fi ay cant ak i ñaan Cheikh Mouhamadou Bachir mii di de di seen ndaw ñoom ñëpp tam tànn ko ñu tànn ko ñoom jiital ko saa bu fi dikkee ñoom la fi dikkal rawatina bis ni ki tey Cheikh Mouhamadul Muntaqa nga xam ne moo yore nosub mbir mi zimaama wara asri la dalaayi fi yadi moom loolu la ko sëñ Tuubaa def loolu la ko yàlla def loolu la ko bindee fi yëpp nangul mu ne nag bu fi Cheikh Mouhamadul Bachir teewee mel na ni teew na mooy niñ ko waxe woon léegi mooy ay tànkam ak ay bëtam ak ay noppam ak làmmiñam kon nag sëñ Cheikh Mouhamadul Bachir mbokki taalibe yi ñu lay sant bu baax di sant Cheikh Mouhamadul Muntaqa di leen xamal ne taxawaay yi ngeen taxaw mooy yi nga xam ne kilifa yi jiitu woon noonu lañ fi taxawee ku nekk ci ñoom ñëw nga fi mbaa sa ndaw ñëw fi mbaa sa baat ñëw fi tey jii nag sa teewaay bi ni nga ko defee woon ni ko Cheikh Diop waxee ak ñi jiitu defaat nga ko waaye yëg nañ yokkute gi ndax li nga xam ne moom moo ko taxoon a jóg dem turki gi nga xam ne bokki turki yaa ngi nii toog mu dem ñu liggéey liggéey bi bunt yeeg lépp ba mu àgg mu ànd ak ñoom andi ko ñu ngi koy monté ba monte nañ lépp na ko ak volontaire yeeg yëpp waaw bu ko defee Cheikh Mouhamadou Mountakha dana xam ne yebal bi mu la fi yebaloon yëg nañ ci yokkuteg saayir yëg nañ ci yokkuteg baatin ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax ndax tànk yi niñ ko waxee rek koo fi yebaloon rek mu doy koo fi yebal rek mu doy nga dikkal sa bopp ngir xër ci lislaam xër ci liggéeyu sëñ bi te moom lañ la sase nga nekk ci yàlla na la ci yàlla kattanam lépp luñ ci séenu ci yow yàlla na nga ko def ni nga ko bëggee yàlla na yaakaari bi ñu def yépp am niñ ko séenoo ci taxaw gi nga taxaw ci kanam sa kilifa yu mag yi nga xam ne sëñ bi wax na ko léegi Cheikh Diop wala am na ku ko wax léegi ne Cheikh Mouhamadou sëñ Cheikh Mouhamadoul Bachir nee na sëñ Touba moom moom day wér day wéy rek yàlla la yàlla may wér may la kàttan euh, nga yàgg fee teew liggéey bi ñu liggéey ba mu ba mu àgg te ni ko Cheikh Mamadou Lamine waxe woon ak ni ko jiitu bañ yëkkati ko teg ci sa loxo nga teg ko ci sa loxo Cheikh Mamadou Mountakha dañoo xam tolluwaay bi ak xataay jamono ji ak xam ne bi nga tollee ci jóg dangaa jóg ba noppi sëñ bi soxla la mënatu laa wàññeeku waaye nga nga nga nga gëdd rek agsi kon nag ñu ngi lay sant di la ñaanal yàlla yàggal la fi te wéral la yàggal fi sëñ Mountakha wéral ko ñoo ngi sant képp ku fi teew góor yi jigéen malal ndaw ñoo ngi sant ñépp ñu sant ña ca réew ma sant ñoom ñii teew sant ñoom ñiñ fi fekk di sant ñépp góor yi jigéen sant nañ baax bokki taalibe yi nga xam ne nag bokk manees naa xam ne bokki taalibe yi ndax ñu ngi nii ni taalibe yi dafa rek lañ def dañoo sukk seeni woom dafa si yéen la nuyu siyaare nga ñaanal leen ñoo amee liggéey bi kon ñu bañ guddal ndax xam nañ ne xat na ci yow lool ñu bàyyi la bokki taalibe yi ñu ñu nuyu la ñu leeral la seen mbir rek ta nga ñaan ñu daal di ko rek ba ba beneen ak jàmm insha allah ak seen Tuubaa ñëwoon nañ siyaara si la bi ñu fi ñëwee waaw moom moo leen jiite mooy seen patron moom moo liggéey bunteeg palanteer yi ak isinam euh, ba nga xam ne moo nekk foofa waaw liggéey bi liggéey bu wér la wax dëgg yàlla suñu xol sedd na ci waaw kon nga ñaanal leen bu baax ñoom it ndax jàmbaar lañ ay jullit lañ sëñ Abdoul Ahad euh, xam naa incha allah danañ leen indi foofa nga gën a xamante ak ñoom comme yaa ngi yëngu ci demee noonu fii ci Touba incha allahu Mbàkke daal sant nañu bu baax a baax a baax. waaw sëñ bi nee na mi ngi ñaan bu ñu fi dellusiwaatee na liggéey ba egg wala li des tuuti lay doon. soxna yi dafa xat waaye eh, sëriñ bi wax na ne ñeneen ci réew ma ay gàllankoor la sëriñ saari bu daal santaane rek ne wa xaqan ak rabbi bi ma yasrahu ak farid bi Mustafa nee na yetti yooyu digal na leen ñu di ko jàng te bàyyee lépp nag sëriñ bi wakaana xaqan rabbi bi maay soxu ak amin nangu leen ñaan soxna yi soxna jooje ñaan moo jiite soxna yi ma nga fële ca soxna ya moom it nga ñaana leen bu baax a baax a baax muy soxna yi bokki taalibe yi nekk ci réew ma ak ñi nekk fii ak waa Sàmm waaw amin nangu leen ñaan anta allazi alanta man adana بمدح من كتابه هدانا لرت من ظلمني فلانا ولانتقمت منه يا مولانا مدم كوسي صافيا جذلانا وللأمير قند القزلانا يلاح يا من لم يزل رحمانا أيا رحيم لي أدم أمانا نفيت من أحرجني مجانا بمدح من قد ألك السجانا